maa dikkati del ci li xew ci réew mi li ma daan wax rek di ko wax ci sama émission saa su ne waxtu wu ne réew mii la fekk suñu ruugaa ngi far-fari bakkan bi di noyyi ñuy dama ak dikk lu ñu fi def ci lu dëgg den ko dénoncé damaa gën a fisal sama mbir nag ci lu daal ci yoonu murit loolu moom laa amul sago loolu moom ku ma bëgg a laal rek laal yoon yi wala nga laal sëñ bi mais itam réew mi dañ cee bokk te it suñ dund gépp ginnaaw bi nga xamee ni jox nañ suñ àddina ak suñ dund seexul xadiim dañoo bokk ci réew mi nekk ay citoyen war cee mën a wax xam ngeen ni lii ngeen gis mu xew ci fan yii doo xam lan la ak man rekk la ak caay-caay kepp la du la neen ay politiciens yu bëgg a lóore askan wi gëmuñu seen bopp xamuñu seen bopp mais askan wi yéen laay waxal rikk waay rikk waay gëm leen seen bopp bu leen gëmati kenn ci ñoom ñii ñu yàlla doon wax moom kabura maqtan indallah bu ñu ko moomul gis ma ko moom njëppim yàlla daal na seen kaw ndax lan dañoo wax lu ñu gëmut dañoo wax lu ñu defut dañoo wax lu leen tollul ci we waaye nag mbokk yàgg naa leen wax ni leen politiciens yi alquran da leen tudd bu yàgg ci ay ay yu rëy bi ci njëkk innal muluuka isaa daxalu xaryatan afsaduha ñoom pénc mu dugg dëkk buñ dugg bu ñu jëlee pouvoir dañu koy yàq den yàq ñooña yàq askan wa doyadal leen mënoote leen jaar seen kaw ba la ñu bëgg ñu am ko loolu alxuraan wax ci ñoom përëg say waaye nag mooy jàng alxuraan akaabira mujrimiha joo ci gis përëg sayoo ko moom wa kasaalika ja'alnaa fii kulli qaryatin akaabira mujrimiha sunu borom nee na man maa def ci bépp réew bépp dëkk ñi fa gën a nekk ay wëyu ñi fa gën a nekk ay bandi mooy përëg say akaabira mujrimiha joo gis ñoom ñoo ko moom xam nga ni mais ñii doyoo dal nañu tuutal nañ ñu mais nañu gëm suñu bopp ma ni yéen lu waral lu waral ngeen di ñaawal askan wi nii xam nga yéen sénégalais yi ca um ngeen yëpp sénégalais yi ngeen yëpp gouvernement bii nga bi nga xam ne tey moom la président teg képp ko xam politique dara dara dara wala nga yàgg gis ñu nag bu ñuy wax politique waxuñu seen politique yu bon yu salte yi politique yu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak saxaaba yi ko toppan ba ci seexul xadim mii ba ci mag ñi toppat Serigne Touba seen doxalin dañu loolu lañu woowee politique ci baat bi noonu lañ koy woowee ñoom li doon doxalee ba seenu askan mën a réussir wuute na ak loolu lii ngeen taxawal gisuñu fi xam-xam bu ngeen teg pour Sénégal jàll ca kanam mais seeni avancement rek ngeen teg mais nag alxuraan yàgg naa wax ci yéen. pouvoir bu ci nekkee dafa war a am ñu nekk ci ginnaawam bëgg jël pouvoir ba loolu la joma koy may ak ngor mu di ku la joxub xaalis nga dikk na sirqa di dem ci xissab Suleymaan ba ak Balxiis ba ko Balxiis bëgg jox xaalis lan la wax ak tamit duna ni bi maalin ndax nag maa bëgg jox ay malaki xaalis fa ma ataani llah xayrun li yàlla jox moo ma gënal nit day am dignité am fulla am fayda mais loo man di wax bu malati xaalis bi taxawee rek wala ñu war laa dig nangami million rek sa ngor dem kañ la askan wi di am li ñu bëgg kon mais loolu balaa mën a nekk da ngay mën a muñ askan wi da jàppale nga am ngor askan wi da jàppale ba nga bëgg toog fa nga bëgg a toog muy nekk président de la république waaw loolu nag alxuraan noonu na kenn mënu koo am lu da def kat bu nas muy rey sa bakkan ci coona li Sëñ Tuubaa wax ne na baxtu ko maan ala kat din ba daa maa ngi leen di yée yéen ñi ni yaakaar ngir ma ni lii ma am ama ah, ma koy amat seen xaju xaw na maa dee dañ naa lu mburu dajul ci taal yow Sëñ Tuubaa lay yée pour yow mi nekk ci àddina te bëgg dara force nga ñaf ñafe ba jot ca loola mais bu ñëpp àndee ak pouvoir kan mooy nekk option bu ñëpp àndee ak pouvoir bu ñëpp àndee ak pouvoir ana kon ñi nga xam ni ñoo war a safaanoo ak pouvoir te réew ndekk jëkk ñii dañoo war a ak pouvoir ñii safaanoo ak moom mooy tax réew mën a dox mais bu kër xeexatul état kañ fu fat nañ ko waxe mbokk yi jiite leen seen xel yi loolu nag balaa ma nekk alxuraan wax na ko wa maa yulaqaaha illa allazina sabaru da ngay mën a muñ ba yàlla jox la ko kay mais ku mënta muñ dara du fekk loolu lay wax naan ku mënta muñ ayoon mitti mitit ay naqar naqar doo mën a jot bànneexub bànneexub la nga bëgg a am moo tax alxuraan waxaan ni wa maa yulaqaa illa allazina sabaru wa maa yulaqaa illa zu hazzin aziim borom cër rek moo mën am loolu mais police Sénégal naa ci ñoom ay bukkee fi ne ak kañe askan wi bu boycotté ay élection daganoon élection yoon defati ma ne nan ko boycotté ndax ñëpp a yam tout benn numéro la waaye nag wa min annaasi man yastari lahu al hadis la yudilla an sabilillah xam ngeen yéen ci ngeen yéen politiciens yi xam ngeen da ngeen di foye da ngeen noo def ñu nekk ay côté seen côté di ngeen def ñu nekk ay gore yu ndaw ngeen def ay morte menacé ngeen neex ngeen di wóor ba tëdd menacé waaye xam ngeen ne réew mi ñoru leen yéen ñëpp laa wax nag tout du président du ñu jëm ci moom du kenn ku ci réew mi ñor amut seen bopp rek leen ñor mais na ngeen xam ne li may tëjee ak yéen mooy xisab Omar ibn Khattab ba Omar ibn Khattab bi mu fi jógee fi jógee ba am fukki at ak ñaar te Omar ibn Khattab na ngeen bàyyi xel ne alxuraan ñëw na ay yoon yoon tudd ko Omar taxaw na bis xalaat ni aka neexoon yàlla defal nu maqaama Ibrahim yi mu nekk ab jullikaay sunu borom daal ni def naa bis fekk tey maqaama Ibrahim nekk ab jullikaay te Omar koo xalaat ci xolam donc alxuraan dal ko wa taxazu maqaama Ibrahima sallam sunu borom ne bis nekk tey def naa maa maqam Ibrahim muy seen jullukaay nga xam ne ku fa dem da nga fa julli ñaar rakka Omar bi ñu jàppee jaam yi te xasatu badarin andi leen Madina su ma a war a Omar ibn Xataab dafa wax ni yow Muhammad jaam yii nañu leen rey ndax ginnaaw ay yéefar lañ yéefar du mbokk Abubakar Sadiq ni ko déedéet na leen laaj njot fi daa yonent bi ànd ak Abubakar alxuraan bu mu ñëwee dafa dajjale yonent bi wax dajjale Abubakar wax daal di ànd ak Omar Omar ibn Xataab boo dee suuratul mu'minuun suñu borom bay wax ni man yàlla maa bind doomu aadama def ko min sulaala min tiin di wax ni ma ko bindeeg ni mu nekk def ko mu doon ay yax def ko mu nekk am yàpp ba ma orienté ko ba mu nekk doomu aadama ju rafet bi mu waxee loolu rek Omar daal ni ah fa tabaarakallaahu ahsanu xaaliqiin Jibril ni yaa Muhammad uktub haazaa min al aaya bindal loolu bokk na ci aaya ji kon Omar alxuraan ñëw ay yoon yoon ànd ak moom Omar mii nag faatu na ba am fukki at ak ñaar. doomam gént Omar ñu di ko xisaab waxat naa leen ni ngeen moytaliku diggante xisaab ak asaab bokkuñu xisaab mooy réglé kenn koy den ko def ci ñun mooy règlement de compte asaab nag mooy buggal kooku ab yéefar ko def ko bon wala ko moo xisaab nag moom ñu baax ñi ñëpp dañ leen réglé Omar am na fukki at ak ñaar doomam gént ñu di ko xisaab di ko réglé bi ko doom ji géntee Omar ko yow sama doom ci biir gént gi xam nga lu tax ñu may réglé nii fukki at ñaar ak nii sunu borom ak may ko lu ko waral mu ne ko bi ma nekkee ci pouvoir muy bi ma nekkee président de la République man Omar ibn Khattab ne xalifatul dafa am benn pont boo xam dafa demoon bay yàqu ma bëgg koo daj ji defar ko waaye diggante bi may xalaat pour defar ko am ay sàmm yu fa jaar leen seen gàtt jaar ca pont benn gàtt tab bi ca pont ba daal di dee dee googee gàtt ba dee ca pont ba te booba maa nekk ci pouvoir nekk xalifatul muslimin maa war a defar pont ba diggante bi may xalaat war a defar pont ba ak yooyu gàtt ba dee fa mu ni ko loolee dama yàlla di xisaabe ngir gàtt boobu dee rek ci poom boobu te poom maa ko war a defar waaye kon nañ xool ñooñ suñ président yi ñun président yi ñu jiite bu ëllëgee bu leen yàlla tegee ci kanamu jaam yi waqifuhum innahum mas'uluuna taxawalal président yi ak ñi leen toppook ak yooyu il faut ma laaj leen képp ku leen toppan ngir alali àdduna su boobaa yéen bokk mbugal mi li ma daan wax sëriñ su ndaw si ak ñi topp ñi topp politicien yi loolu laa leen di wax ñu topp politiciens yi muy Serigne su ndaw seeg ñeneen ak ñeneen ak ak ku mën doon rek boo topp politicien ngir alal doo woo ko dëgg dem leen jàngi suuratu nam li diggante Balxiis ak ak Souleymane ba mu koy jox alal lan la wax ak tamit duuna ni bi maa ndax da may jox ay alal jox alal lu tee wax la dëgg fa maa aataani laa xayrun minhaa xayrun li ma yàlla jox moo gën lii mbokk yi nanu jaamu yàlla gëm yàlla doxal suñu réew gëm suñu askan fexe suñu réew avancé suñuy ndaw doon yéen ngeen mën a doon suñu référence yi ndaw mais xam ngeen ñii ne doo yu référence moom yi ma gis xam nga ni benn koy na ku naa sa doom na nga roy ñi amut kenn ku ñun ku naa sa doom wala sa sët wala sa jabaat royal politiciens yi amut moo tax royi leen seexul xadim sunu mag ña ak maam alaaji Malik ak Cheikh Ibrahima ak Bu Kunta ak ñooñu ñooñu di référence waaye du ñii ma gis ñii moom ay côté rek lan ak kaña duñ dara